kii laa tudde jali bu ñuul mm-hmm. mburu mooma tudde ko góor ñaari conco xonq te du naar bari ñaak te du bambara biir bi ñam la biti bi ñam la foo xamp jàll kii poson rek lay bañ baa asib boo ci defee nen mayonnaise ndambe akara pastel mbaa fiiriir lépp day dem mm-hmm. noo sant yow juufa ñoo ko bàyyi man mbañ jóob mbaaco